بإبراهيم يس الحمد لله إلا الله لا إله إلا الله لئن عزني لقي النبي ووصاله فقد ضام لي تذكاره وخياله وإن عذني مدح له فقد طيماني نوره وجمال الحمد لله نور البصر bu مولانا شيخ إبراهيم ndaxam démb de bi ñoo jeexal bunt bi wala bi ñoo jeexal jataay bi daf noonu yenentu yàlla Muhammadu de bokk na ci karaamaam yéeg na ci kaw doju doj wi di rëngi-rëngi rëngi-rëngi nag la bàyyi tuddee fecc waaw rax ñun ci olof ñu ci xam ñi tëggal la sabar nga fecc waaye xam nga doj du fecc hmm. waaw hmm. moo tax loolu ñu bëri daf leen dee sànq hmm. maanaam bàyyi lim ko tuddee fecc noonu rëng-rëngi a mu ne ko dalal yow uut bàyyi noonu na doj woowu dafa bëgg dafa bëgg yonentu yàlla Muhammad yonentu yàlla Muhammad bëgg ko Cheikh Ibrahima ne na an yarqusa ba fecc alhibbu aji sopp islaamasa bu laalee jisma ma jismal maxbuubi jëmmi kam sopp doonal jiddaali ci lurut benn werante mm-hmm. bàyyi mu ne li yell kay nga xam ne mën naa nekk mm-hmm. mooy ku sopp dara sopp ko sopp ko nit ba nga xam ne yënga ne sopp nga ko mm-hmm. benn bis ngeen dajee ba nga téye ko ngeen joxante loxo wala nga tatafu ko bàyyi mu ne ko kay fe xel eh, na mu fecc waaw kon doju Uhud bu dee dafa bëgg yonent bi yonent bi bëgg ko mu dema dema dem ba benn bis yonent bi ñëw ne ñànkaas yëg ci kawam mu pooj waaw moo tax bàyyi mu ne yell na wa jadiiru yell na waaw xeey na xeey na soppi bi fecc waxtu wum laalee jëmmi kam sopp buñ dajee xee daal foofu moom pooj mën na fa xam nga foofu léeg-léeg pooj sax du fa am waaye daf la bëgg a wan rek comme euh, ma ma gisee la moto bu rafet ma ne eh, Cheikh Ibrahima moto bi de boo ma ko mayoon danaa fecc maanaam dana kontaan la bëgg wax waaye du ma fecc xam nga mm-hmm. waaye danaa kontaan mm-hmm. olof dafay waxee noonu mm-hmm. waaw te njàngaleem olof mi ak njàngaleem arab mi léeg-léeg dañuy duggante kon baay pooj bi muy tudd fii dafa bëgg a wane kontaante kontaante xeer wa muy rëngi-rëngi yént bi na ko xëy dalal dalal dégg nga man maa nekk ci sa kaw ak Babacar Omar hmm? bàyyi mu ne man Ibrahima de law ba daa bu feeñoon lii ñaal ma turaabu aqdaami taha suuf bu ndëggu tànk yunt yàlla ma ma dëgg yuntu yàlla ma dëgg tànkam yekkati ko ma jot ci suuf booba arxusu dana ma pooj dana ma fecc dëxëra jamono doona ma iqlaalin ci lur benn niiwal <clears throat> Cheikh Ibrahima nee ne man de fu yonentu dëgg tànkam su ma ko gisoon danaa fecci ci lu dul benn weerante mm-hmm. lu dul benn néewal mm-hmm. fecc diirab jamono yëpp la wax mm-hmm. wa diirab jamono yëpp moom ni mën na koo feccam arxusu dahra <laughs> diirab jamono ni mënu koo fecc di beneen bi mooy moom na bam ba mu àggee midina na ci beneen wéyam bu muy wax ne boo duggee midina foo gis rek jàppal ne yonentu dëgg na fa tànkam ànd ak xam nga loolu wax na ko kon ba mu eggee midina moom lu ko tere woon a pooj parce que ba mu eggee Medina rek la gis fu yonentu dëgg tànkam mm. ndax Medina moom waxuma xaalli Medina ba waaye li wër jumaa yi Medina ji jumaa ji ak ca rawdu ba mm. yonentu ak Jibril jamono bu nekk mm. bàyyi egg na fa kon gis na fu dëgg tànkam waaye ndax ñi ànd ak moom mën nañoo saxal ne bañ àggee ba bàyyi gisee loolu rek dafa dafa dal di futtee ko commencé pooj ñi koy tëggal <laughs> moo tax jàngale yi info ñi koy xaw di leeralal xale yi maanaam yow mi nga xam nga dem ba nga gis ne yow laay laay la laa bi ak li la bàyyi jox neex na ci yow ba léegi boo koy def da nga koy booleeg euh, euh, li ñu mën naa mën nañ ko tuddee fee ci di tëb di dal ah bu boobaa def ko rek boo ko defee yaa xam waaye bul ko askan bàyyi ci ne bayti bi bàyyi mu ne bu gisoon fu yonentu dëgg tànkam mu fecc ne bàyyi feccut kon yow la nga bëgg ne kon bàyyi moom gisul fu yonentu dëgg tànkam waaw seetlu ko rek bàyyi mu ne su ko gisoon damay fecc jamono kon yow xam nangu ngaa saxal ne bàyyi feccut kon li nga mën a dëggal mooy kon kay kon kay bàyyi fa ko gisut kon mm-hmm. man nag gis naa ko kon xaaral ma pooj waaye kon il faut ñi leeral foofu rek mooy bàyyi moom lim jàngale arqusu daxara diirab jamono dama koy fecc mooy diirab jamono danaa kontaan mm-hmm. ndax nit dana la wax na la lii de boo ma ko joxoon ma pooj mm-hmm. waaw hey boo ma mayoon lii danaa fecc waaye fekk daf la bëgg a wax ne danaa kontaan lool waaye boo ko joxee sax du tax mu fecc ci liñ tuddee fecc ñun kon bàyyi nee na gisoon fu yónni jamono yëpp dama koy fecc ñi saxal ne baay gis na fu yëndu dëgg tànkam te mënuñoo saxal feccam kon arxus gi la bàyyi doon wax mooy kontaante mbégteem xol la bëggoon a wax wala xanaa feccam xol la boo kon mooy dana am mbégte mu mel ni fecckat yi bi ñoo am wala nga ne feccam xol mi xanaa mooy fecc ci xadaraat yi kana mooy tëb ci pays dem ci pays bala dem tëb ci pays bala dem ci pays bala waaw lu ci mën a xew mu ngi noonu kon su ko defee mbiram mbir mbir moomu boo gisee ma ci taxawlu nit ñi dañ ciy coow lu bari ci bayti bi waaye li ma bëgg a wax daal mooy ne moom nañ ci jëfandikoo xel rek te bañ ciy jëfandikoo xol mooy bàyyi ne su ma ko gisoon danaa pooj yow léegi yaa man a saxal ndax bàyyi gis na ko wala gisut ko ak fecc na ndax fecc fekkee nga ne bàyyi de feccul yëguma feccam kon fa ko gisut te yaakaar naa ne bàyyi tolluwut fu ñoo waxee gis na ndëggu tànk yonentu ndax bàyyi dem na ba ne yonentu yàlla Muhammad buñ ko nataal suñ ma nataaloon sax buñ génnee carte bi yonentoo fa nekk mm-hmm. dem na ba ne sax yonentu yàlla Muhammad far na ma nekkatuma fi mm-hmm. kon nag kon kooku waxatuñ gis ndëggu tànkam waaye bayti bi mm-hmm. mu ngay jàngale rek mbégte mi nga xam ne doon na ko am ci yonentu ak bëgg gum ko bëgg ay ca ak ñaax la yow mi mi jog nga jog uti yonentu xam ne Hmm. bàyyi ne rëbbi yow borom bi rëbbi yow sama borom bi maanaa yaa rabbi xabli yanna nga ma may misaasa jismin laal ak jëmm li taxaa ñeel yuntu yàlla muhammad baada taqbili kaffi ci gannaaw bu ma fóonee tinqali al mihtaali tinqalal aji tabe waaye waaye yow yàlla may ma ma laal jëmmi yonentu yàlla muhammadu waaye may ma ko may ma ma fóon tinqali yuntu yàlla muhammad tinqalu tabe la yii yëpp xam nga ne ay ñaan la yoo xam ne xam na am na lu ko kowe mm-hmm. ndax ki ne gis naa yonentu yàlla Muhammad mu bind signé jox ma ne yaay sama ambassadeur mm-hmm. ki wax ne ah, buñ ma nataalee bu bu carte ba feeñee yonentu yàlla Muhammad a jaay génn mm-hmm. kooku passé na laal jëmm ak fontinq passé na ko kay waaye kon mbi mi ay leebul la ay étape la ay daraja la ay martaba la waaw léegi léeg ngay waxee ci martaba bi fekk ni ñu passé nañ martaba bi bu yàgg mhm. bàyyi ak yontu ma mat passé nañ laalan laalante jëmm ak fonténk mhm. waaw passé nañ ko mhm. ndax jëmmi yontu yàlla maamat far na ko ko kay ñaari jëmmu sax nekkatut fa ba ba ngay laal jëmm di fonténk kon loolu martaba la woon su ko defee kon euh, li ma doon tontu xale yi fan yi ma leen euh, euh, Baay Ñas dafa jàngale mu ne <clears throat> Euh, céet hmm. fe fecc ci dagan na hmm. lu taxoon mu ne fecc ci dagan na itam lu jar xale yi la hmm. mooy dafa wax ne Xadija keroog biñ ko mayee yonent bi moom tam xam nga kontaan na lool amul bis bu mu kontaanee ni bis bu biñ ko mayee Xadija léegi mu ne liggéey liggéeykatam yi comme boos la woon moom Xadija liggéeykat yi nekkoon ci kër gi muy jaa eh, mbindaani kontaan mu dal di leen solal Mm-hmm. asube asube wala otes mm-hmm. ñu commencé nag di pooj mm-hmm. di wéy seen wéy araab yi di ko wër fekk yeneen too ngi toog waaw mu ne yonti yàlla Muhammad lii nag xam nga booba yónnee guñ ko sax waaw mu ne ko lii nag loo ci xam mu ne ko ah, lii gën la dara nekkut ci bàyyi bu ko waxaan ci la daan wax ne mu ne moo tax ñuy fecc ci ceet ba léegi waaye bàyyi boobu ko waxee itam dafa laaj leeral mooy ndax ceet niñ koy feccee léegi la bàyyi doon wax déedéet maanaam isi sabar yi jigéen ñi def ay sol ay eh, tubéy yu ndaw mm-hmm. di ñëw di fecc di tëb di wane seen cëri mm-hmm. baay baay waxut boobu baay bi mu wax mooy ba suñ mag ñi daan def rek ñu mm-hmm. muuree nga dégg kut kut ji mm-hmm. dégg nga feccentu mm-hmm. dégg nga euh, fecc yooyu nga xamoon rek mag ñi daan def xam ne benn cër du sa benn cër du wane du feeñ loolu la bàyyi di wax waaye boo bëgg a jël bayti bi nag def ko mooy sabar yi xew léegi nga xam ne nii bu ñoo ñëw dañ koy waajal ci colin ba sol loo xam ne boo dikkee da ngay fecc di ko wan góor ñi di ko wan ñëpp ñuy yuuxuloo fecc boo bàyyi waxut ko na leer léegi keneen ñëw na ma waaw ñun ñi nga xam ne nag dañoo jël ñun biñ xamee ne fecc moomu baaxut euh, te ñun céet la ñu bëgg cee fecc ñun ñi jël kon laay laay la la waaw may la boobitam soo ko buggee def ko waaye doo ko mën askan bàyyi ndax bàyyi itam jamono waxu doon ne waxu ne maanaam ciit xew na mu ne nañ nañ boole laay laay la ak ak fecc waaye léegi nag am na ñoo xam ne ñëw nañ ñoom am nañ seen céet te foog fecc ñoom ñi jël laay laay la la bi wala ñoo xam allah bàyyi la ñoo wax moo xam lu ñoo wax. Mm-hmm. <laughs> boole koog seen i pooj. Mm-hmm. boo defee loolu yëpp dañuy xam ne nii la man maa ko bëggee nii waaye li may bay daw man rek mooy def askan ko bàyyi. Mm-hmm. maanaam daal ay mbir la yoo xam ne kenn ku ne. soo ko bëggee di ko def mun nga ko def di ko def nga xam ne yow yaa ko def. wala xanaa sa muqadama la ko wax waaye bul ko askan Mawlana Seex Ibrahim nag. loolu tam daf ci am solo. dégg nga. ay ca mu ngoog mu ne bàyyi ne bokk na ci kawteef yi wata sakar fàttalekul andi na gis en jooy ak xëkk ak tàndarma ga li sawqin ngir bëgg yonentu yàlla muhammadu waaw fàttalekul boobu kawteef la de yonentu yàlla muhammad bi ñu tabaxee ka euh, jumaa xam ji ci Medina benn euh, dattab tàndarma pakk garabi tàndarma dañ ko dog ba mu em hmm, ñu def ko comme toogu xam nga boo toogu yombut benn benn benn tàndarma lañ dog hmm. Hmm? ba nga xam ne dana gàtt hmm. ñi samp ko defar ko moom mel ni toog bu yontu yàlla maama ñëwee di xutba ci lay toog bu jógee xutba buy toog toog dem ba mu yàgg ñi génne pakkab ba ne nañ fi def toogu biñ génnee pakkab tàndarma defar fa toogu yontu yàlla maama ñëw ci jumaa ji di xutba taxaw taxaw di xutba di toog fa fañ ko defaral ñi dégg pakkab tàndarma baa ngay jooy comme liir bàyyi mu ne pakabtaanoona baa ngay jooy comme liir mm-hmm. lu mooy jooy mm-hmm. parce que yonent bi doon toog ci kawam waaye léegi daf ko bàyyi dem toog ci keneen mm-hmm. soppe ba bàyyi na soppeem soppe bu bàyyee soppe ay jooy ñëw pakab tàndarma bu wow bu yonent doon toog yonent bi bàyyi ko dem di toog feneen moom mu nga fa di jooy moom yonent yàlla Maamad wàcc ñëw jël loxoom teg ci kawam di ko nëpp nëppal comme kuy nëpp nëppal xale buy jooy sallallahu alayka wa ala alihi loolu la bàyyi di jàngale yonti yàlla moom kan mbiram moom fu ci em rek waaye kéemaan la hmm. pakab tàndarma bu wow hmm. waaye nag mu ngi noonu hmm. yonti yàlla maaman moom la la ko waxee woon rek yow yaay xam ne lu lum dugg rek lum dugg rek loola dund lum génn rek loola dana dee na am naqar Hmm, bay jooy hmm. ah, ah mu nga kéemaan la dégg nga summa maylal afiyaay afiyaay nga fàttaliku itam jëng ak bànqaas ya bànqaas yi garab ah, dama jël summa maylal afiyaay topp jëng ak ay mamaalin gu ci jëng maanaam eh, ker ker yi di ko keral mm-hmm. gis nañ niir yi di ko keral may sarata nettali ko mm-hmm. ba ñooy ba ñuy dem ca uh, business ba mm-hmm. ànd ak njëgg ma bu naaj wi tàngee yi gis fu mu toll rek niir yaa ngi tolloo gëlëmam gi pour naaj wi bañ koo tàng bu ñëwee fekk gaa mbooloo mi toog ci garab gi njëkk ko fa comme moom duut kuy njëkkalante ñu toog ker gi ba ker gi fees su ñëwee moom du bëgg a kenn du ñëw xuus dem fenn hmm. daay ñëw rek fa fa ma yam rek laay toog hmm. su ko defee fekk kër gi fees na ca naaj wa hmm. bu toogee ca naaj wa dañuy toog rek gis kër gi daw ñëw fekk si ko bàyyi nit ñi ca naaj wa ah yéen yàlla mat kay fu mu nekk rek kër fekk ko fa parce que moom mooy noflaay bi ah mu nga foo baan bi لئن عزني لقيا النبي ووصاله فقد دام لي تذكاره وخياله وإن عزني مدح له وثناؤه فقد طيمني نوره وجماله